wax waxfir liman amaroom bihi jami bokki jullit yi bokki taaliba yi bokki umul islaam yépp ñu leen di siyaare euh, ginnaaw bi ñu jiitalee siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér euh, di wax ne tey sunu jataay bii nag buñ ko gisee ñu ngi jëm ci gàttandu gan gu mag euh, muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar Euh, ñu leen di indil euh, kaddu yu nuyoo kaddu yu siyaar kaddu cant kaddu yu soññee yu bàyyi ko ci jëwriñ al imaam sëriñ Afi Busa mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ci liggéey bi nga xam ne mooy daayira muxaddamaatul xidma bi nga xam ne moo yor Seexna Ahmadul Xadim jumaa ji ginnaaw nuyoo boobu ak cant gi ak ngërëm di ak mboolem ku ne ci daayira ak mboolem ku nekk ci jumaa ji Euh, ñuy wax ne liggéey bi nga xam ne buñ masaan toll fii suñ digganteeg màggal daanañ ci soññee euh, képp koo xam ne daana jàpp ci liggéey bi euh, walla ngay membre daayira bi te ne ci bitim réew ñu fàttali na la waxtu woowee ñu ko daan soññee ak seenam ci jot nañ digal nag ci sëriñ bi ngir mboolem ku nekk ci diaspora bi te daan taxaw ci lu jëm ci jumaa ji ci daayira Muxaddamatul Xidma loolu yi ñoo ngi la ci soññiwaat muy addee yi màggal gi ci wàccaay lu jëm ci wàccaay màggal gi euh, diaspora nag buñ ko waxee réew yëpp dugg na diggante Amérique ak Europe ak Asie ak Afrique ak fu waay ne ci bitim réew rek euh, ndigal li agsi na ci yow euh, kon ñoo ngi soññ sunu bopp ñoo ngi soññ ñëpp di wax ne liggéey bu takku moo fa ndax kenn ku ne gis na dayre bi euh, at yi su màggal gi ak see euh, lu toll ci juróom benn téeméeri doomu aadama danañ leen waajal mbaalu ko ëpp ñu ne ci jumaa ji di ko taxaw euh, te it kenn ku ne xam ne ne jumaa ji mooy dalal gan ñi ndax màggalu seexul xaddim gi bis boobu rek lañ natt ne lu ëpp ñeenti million doomu adama dana ñëw te képp ngir siyaare si na Ahmadul xaddin ci bis bu tedd bu sell bi boo ñëwee Touba ba dëgg sa tànk li sam xel di njëkk a def dak mooy dem siyaare ji Sëriñ Touba soo demee daayira boobu ñoo lay gàttandu dalal la taxawu taxaw la ba nga siyaare Seexul xaddin euh, daayira bi tamit ñoom ñooy waajal mboolem lu aju ci luñu war a entretien mu jëm ci seetal jumaa ji li dale ci barabu Seexna Ahmadul Xaddim bi ci lañuy ñuy tàmbalee Euh, ba ci biir jumaa ji ba mu daj muy peel muy ventilateur yi muy kaw gi muy biir gi muy bitti gi fépp urum bi lépp danañ ko seel danañ ko taxaw euh, taaral ko xeel ko ba mu mel ni ko boroomam bëgge liggéey boobu nag moom lañuy soññee euh, mboolem koo xam ne yaa ngi ci daan jàpp rek muy biir réew ak bitim réew rawatina fii ci Touba Espagne nga xam ne ñoo fi la ñu nekk te association nationale muxaddamaatul xidma di ci taxaw taxawaay bu rëy euh, Sëriñ Daam Lo moom Cheikh Moustapha al Karim doon coordonnateur général bi nga xam ne moo yor liggéey bi ànd ko sëñ Fallou Dia du ñu fàtte président fédération sëñ Ndiaye euh, ak El Hadj mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ nekk ci fédération Îles des Canaries ànd ko sëñ Abdou Sarr ña fa nekk ñëpp muy waa île bi duñu bàyyi kenn. Euh, kon liggéey boobu daal lañ doon indi euh, di wax ne ñoo ngi woo ñëpp di xam ne liggéey bi tàmbali na ci addiya ji jëm ci waajal màggal gi tam jëm ci daayira Muxaddamaatul Xidma euh, loolu lañ doon indil mboolem koo xam ne rek ñu seq liggéey bi bàyyiwuñu kenn nag ndax liggéeyub lislaam la liggéeyub seex na Ahmadul Xadim la kon nag yàlla nañ ci daje barki waqti awaay jëli si na daamoo. fi xidmati wa ablahum maaraamoo inali sina saarahon li xidmati fa lahumu diyaara wasal jannati jërë ngeen jëfati eh, bu dee nag ci compte yi nga xam ne tam eh, yor nañ ko bu dee ci association nationale muxaddamaatul xidma eh, compte yi nga xam mooy compte la sa banque mu ngi ci képp koo xam ne am na loo ci bëgg a dugal itam te nekk ci Espagne wala foo nekk itam boo ko ci dugalee daayira muxaddamaatul xidma dana ci jot Euh, amal nañ tam compte yoo xam ne ci moomeelu daayira Muxaddamaatul Xidma la mooy compte Orange Money ak compte Wave yoo xam ne daayira bi moo ko moom yooyu tamit képp koo xam ne maanaam am na loo ci bëgg dugal mu dem direct ci daayira bi rawatina ci ñi biir ñi ne biir réew Sénégal euh, compte yooyu itam mi ngi ci biir téléphone contact yi itam mi ngi ci biir lu ci waay bëgg leerlu boo wootee bu dee yooyu ci biir jumaa ji yi ñi nga xam ñoo ne ci jumaa ji ñu ngi ci bu dee ñu ne ci bitim réew tam muy ku mel ne noonu ak ñi bàyyi daama ñeen ko seqal ñoom tam ñu ngi ci biir kon daal loolu lañ doon indi di wax na tam taxawaay bi sell na lool kon liggéey bi tàmbali na jërë ngeen jëfati asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibé yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawul Touba jëm si entretien wala maintenance wàccaa yu màggal tuuba dundal weeru koor dundal gàmm saytu armee lu baaqiya yi taxawu personnel bi si wàllu social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bii si ndigalu sëriñ bu Bousso imam mi jiite daayira bii ñooy yëgal mbokk taalibé yi nekk si diaspora bi rawatina waa Europe ne mën nanoo di yónnee seen i barkeelu si transfert bancaire si association nationale Muqaddimatul Xidma Espagne ci Caixa Bank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Biki Swift Caixa Bank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 86 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii si numéro yi ñu bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi. yi di nga feeñ ba faaw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faaw te yàggal fi suñu kilifa gii Cheikh mun taxam Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne tubaab gépp jërë ngeen jëf